الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين قال المؤلف رحمه الله حدثنا وهب بن بقية عن قائد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتفقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفتح أمتي على ثلاث وسبعين فرقة حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان حاء وحدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني صفوان نحوه قال حدثني أسهر بن عبد الله الحراسي عن أبي عامر الحوزني عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة زهر بن يحيى وعمر في حديثيهما وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه وقال عمرو الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا اتخله rahim kon ñu jéem a xool ñaari xadis yooyu ak riwaay yi ci jot a ñëw eh, ci bind yi weesu jotoon nañoo waxtaan ci borom téere bi mooy kan muy al imam Abu Dawud jotoon nañu waxtaan it ci lu tax ñu tànn téeréem bi ci bind yi luy dàcc di waxtaan waxtaan yu demee nii kon loolu jërul lu ci delluwaat euh, nañ daal di jokkaloo rek ak téere bi insha allahu taala tàmbalee ci ni leen ko waxe woon kitaabu sunna mene téere bi dafa am bunt yu bare bare bari bunt bi nag mooy bi aju ci sunna sunna nag buñ ko waxee bu ko ahlul xadis waxee jubluwuñ ci comme ni ko ñu bari di waxee nga xam ne dañ ne sunna mooy loo xam ne moo bokkul ak farata waaye liñ jublu ci sunna fii mooy topp sunna yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak jafandu ci buumam boobu nga xam ne moom lañ yoor su fekkee ne doomu aadama yépp dafa mel ne ci biirub teen lañ nekk kenn ku ne bëgg a génn am buum guñ leen yoor ñu war caa jafandu ngir bëgg a génn buum boobu ñu leen yoor kooku mooy sunna kon nga xam ne boobu mënut a ñàkk wax ne waatasimu bi xablillahi jamian jàpp leen ci buumu yàlla gi yéen ñëpp wala tafarraqu kon buum googu lañuy wax kon loolu la jublu ci ci sunna waaye jubluwuñ loo xam ne du farata xadis bi mu njëkk a ci biir bunt boobu moom Abu Daawud mi ko di waxee jëlee ko ci eh, cheikh xam boo xam ne moo ko jàngal ku ñuy wax wat bu ibnu baqiya ko jële ko ci ab seyxam bu ñuy wax Xaalid mu jële ko ci ku ñuy wax Muhammad ibnu Amr mu jële ko ci ku ñuy wax Abi Salama mu jële ci Abu Hurayra mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñoom seen xam-xam noonu lañ koy tuxalee kenn ku nekk da ngay jële ci ka nga xam ne moo la jàngal la nga jële ci moom it da ngay wax jiw nee na ma nangam kooka ne nee na ma nangam ba keroog muy àgg ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonente bi alayhi salaatu wasalaam li mu wax ci xadis boobu mooy iftaraqat alyahudu ala ixda aw sintayn wa sabiina firqa riwaaya bi gën a wér moo di ne yahud yi séddalikoo nañ juróom ñaar fukki kuréel ak benn ak taqalikoo ci seen biir yoonu yahud yi muy siif yi wa tafaraqat nasara ala ixda aw sintayn wa sabiina firqa li gën a moom it mooy nasaraan yi séddalikoo nañ juróom-ñaar fukki kuréel ak ñaar mu teg ca ne wa sa taftariqu ummati ala mu ne xeetam wi dana séddalikoo moom itam juróom-ñaar fukki kuréel ak ñett kon yahut yi muy ña nga xam ne ñoom lañu ñu yónni woon Muusa alayhi salaam ci ñoom tàqalikoo gu ba am na ci seen biir bañ mat juróom-ñaar fukki kuréel ak benn nasaraan yi muy ñu yónni woon Isa alayhi salaam ci ñëpp seen tàqalikoo gën naa bari ba mat juróom-ñaar fukki kuréel ak ñaar ci xeetu yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam tàqalikoo gu gën naa bareeti ba mat juróom-ñaar fukki kuréel ak ñett xadis foofu rek la yem ak lii lépp nag danañ ci jël si mu jëlaat beneen xadis mu ne xaddasana ahmad ibnu xambal mi ngi jële xadis boobu kon ci imam ahmad ibnu xambal xam ngeen ne bi nuy lim ñoo jàngaloon abu daawud bokk na ci al imam ahmad ibnu xambal kon xadis bi ci imam ahmad la ko jële ak beneen imam bu ñuy wax muhammad ibnu yaxya kooku mooy muhammad ibnu yaxya al zuhli imam bu mag la ñoom ñaar mu ne xadis boobu ñu ngi ko déggee ci ku ñu wax amul muxiir kooku nag mu ngi tudd lool aw dàkkantalam la bu ñu ne baayu diw sàngam kooku dàkkante waaye bokkul ak tur mi ngi tudd Abdullahi ibnu Luhay noonu la abul muxiir a tudd abul muxiir a jële ko ci ku ñu wax Safwaan mu delloo ci moom Abu Daawud xadis bi mu déggewaat ko ci keneen ku ñuy wax Amr ibnu Osmaan kooku déggewaat ko ci baq yam yi mu tuddoon fële kooku door koo déggewaat ci Safwaan sanad bi door a continuer mu déggee ko ci ki ñuy wax azhar ibn abdillah alxarazi koo ko déggee ko ci abu amir alhawzani kooku moom itam dàkkental la buñ ne bàyyu amir loolu du aw turam waaye mi ngi tudd abdul quddus abdul quddus ibn alhajjaj alxawlaani loolu mooy turu mooy turu abu amir kooku ko jëlee ci muawiya ibnu abi sufyan radiallahu taala anhu mu wax leen ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam day mas naa taxaw ci suñ kat moom Muawiya dafa jóg taxaw ci kanam mbooloo mi mu ne leen yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mas naa taxaw ci sunu kanam mu ne nu ala inna man qablakum min ahli lkitaabi iftaraqu ala tintayn wa sabina milla ñele jiitu woon ci ahlul kitaab yahudi ak nasaraan ya taxtalikoo nañ juróom-ñaar fukki kuréel ak ñaar ne leen xeet bii nag danañ séddalikoo juróom-ñaar fukki kuréel ak ñett li doxikuwaat ci riwaaya bi te am solo lool moo di mu teg ci ne sintaani wa sabuuna fi naar fi naar juróom-ñaar fukki ak ñaar yépp nee lañ jëm wa waxidatum fil janna mu ni benn kuréel rek moo ci tàbbi ajjana wa hiya loolu mooy riwaaya xadis boobu ci riwaaya yaxya ak amr am na leneen lu ci dollikuwaat lu amati solo moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam muy nettali wa innahu sa yaxruju min ummati aqwaamun mu ne dana dem ba ca kanam sama xeet am nit ñu feeñ ci ñoom ñoo xam ne tajaara bihim tilka al ahwaau mu ne bànneexi bakkan yooyu muy biddaa yi dafa leen dana daw ci seen biir dawin woo xam ne day mel ne rag gi ñuy tudde alkalab na muy def ab xaj bu ko dalee rag boobu noonu la leen di def nee na ak sa biit du fa des wala ak tenqo lu dul tawat jooju bu dalee xaj bi daf koy dugg loolu danañ ci del siwaat ci leeral ko kon ñaar xadisa ngoog ak ay riwaayaatam yoo xam ne moom la Abu Dawud euh, rahimahullahu taala ubbee kon euh, téeréb sunna xadis yi ci li ñuy wax moo di kon tàqaloo boo xam ne dafa xeet bi xadis yi nag du Abu Dawud rek moo ko solo wante mi ngi ci sunanu Tirmisi ba tey Ibnu Maaja itam solo na ko Xakim moom it sopp na ko bi mu ko indee ba àggal mu ne xadis boobu wér na ala charti muslim mu ne xadis boobu dara yooyu xadis yi nekk ci saxiixu muslim mu ne moom la yor bi mu waxee loolu zahabi dëppoo ci ak moom wante li gën a wér mooy am na tuuti li ci manqué ndax Muhammad ibnu Amr mi yor ci sanad bi dëkk la muslim andi na ko wax xam ne yëpp wala ñu xam-xamu xadis yéen Euh, <clears throat> nag xam ne dañ xam ne Muhammad ibnu Amr muslim génneelu ko moom dong wante daf ko génne def ko li ñuy wax maqrun maanaam riwaaya la jël ci moom waaye saa bu ko indee day wax ne diw ak diw waaye moom dong moom dong doyu ko matul sart muslim kon loolu lañuy wax axraja lahu muslimun maqrunan wax xadis la boo xam ne amul benn werante ci ne xadis bu wér la loolu moo tax Cheikhul Albani bokk ci ñi ko wéral mu ne xadisun xasan la li mu wax ne iftaraqatil yahud kooku yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi nettali foofu loo xam ne loo xam ne benn mojisa la ci ay mojisaatam li ñu tuddee alaamu nubuwa ndax mi ngi nettali loo xam ne lu xewoon bu yàgg la tàqalikoo bi nga xam ne yahud ya nañ ko ba mat loolu ci ay kuréel ak tàqalikoo gi nasaraan yi tàqalikoo ba mat loolu loolu lu weesu woon la te yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngul ci ay téere bay xam loolu nu mu xewee kon su nettalee lu mel noonu eh, daf koo jëlee ci xabaar boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala moom moo ko ko waxyu lépp loo xam ne day fedd li ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam ku ñuy waxyu la kooku ci ay mojisaatam lay bokk ndax mojisa eh, li muy jëriñ mooy fedd li ak yonentam moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba tey li mu wax ne wa taftariku ummati ala talaatin wa sabiina milla wala firqa comme ci riwaayaat yi ci des mu wax ne aw xeetam danañ dem ba jëmmi jamono ñu takkalikoo ba mat juróom-ñaar fukki kuréel ak ñett kooku itam ci mojisaat yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci la bokk ndax xabaar na xabaar boo xam ne bu agsi lu gudd la su demee ba mu agsi kon kooku day feddli ne kooku ci mojisaat yonent bi ci la bokk yi feddli ne moom ab yonent la waaye doonul nitu ngeen koo xam ne day wax rek di jëli ci bakkanam ab xabaar moo koy dikkal bu jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa ci sunu borom tabaraka wa taala kon su joxee xabaar ca la weesu tan xam ne doonu loon kuy jàng wala bu joxe xabaar ci lii ñëw te ak seegul kon loolu dañuy daal di xam ne luy fedd li ak yonentam la kon yonente bi alayhi salaatu wasalaam la muy xam ci rëy bu ni ñu koy waxee di ko fedd li jamono yu nekk mooy la ko ci sunu borom tabaraka wa taala xamal la mu ko ci xamal rek loolu rëy bu lay doon waaye nag kenn ku jagoo xam lépp ku dul suñu borom tabaraka wa taala amut moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fokk suñu borom tabaraka wa taala yamloo ak lam ko xamal nga xam ne lu mu aajowoo la foofu la yem ci xam-xam sallallahu alayhi wa gi nag taqalikoo boobu nga xam ne moom lañ tudd ba di ko ŋaañ yóbluwuñ ci ñi nga xam ne dañoo taqalikoo ci masalay fiq loolu borom xam-xam yi sunna xam nañ ne taqaliko gën ñu ñaañi ba muy àgg foofu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne ñoom ñëpp ña ngi ci sawara ba mu des benn loolu du tàqalikoo rek ci bunt fiq yi ñi ne ñii nii lañ gise lii ñii nii lañ gise lii nii yoo xam ne woyof lay doon yoo xam ne du tàqale diggante jullit yi tàqal ko guy waral ak noonu loolu taxut waaye li tax xadis bi jóg mooy tàqalikoo boo xam ne ci biir fonk diine la dellu ci biir pas-pas la dellu ci biir jàpp ci sunna ci la dellu kooku la tàqalikoo ba nekk googu moo mën a indi musiba moo mën a indi fitna tàqalikoo boo xam ne dafa dem ba àgg ci laal yonentu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala mu dem bay laal doon gi saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa doon ay ànd ndoom yam xamal yar leen ba jàpp ne ñii doy nañ tàqalikoo gi bu àggee ba daf ci kaw ñooñu googu tàqalikoo moo tax ñuy wax la tàqalikoo goo xam ne dem na ba àgg ci lañ ne woon moom laa leen bàyyeel muy alquran ak sunna doomu aadama jàpp ne mën naa jële feneen fu dul foofu te diine lay doon tàqalikoo gu mel noonu moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam di wax kon bunt yu aji ci yooyu mooy bunt yi indi ak réer mooy bunt yi nga xam ne day indi biddaa moo yi nga xam ne ñi ciy tàqalikoo ñenn ñe boo leen dégloo dañuy wax na seen morom ay yéefar lañ ñeneen ne seen morom ñu bon lañ maanaam nañuy wax ci seen biir da nga xam ne tàqalikoo nga doonul gu ndaw wuute na ak tàqalikoo boo xam ne ci ay masala yu sew la ndax tàqalikoo boobu ci masala yu sew yi ci fiq yooyu xewoon na ca jamono yu saxaaba ya ridwanullahi alayhim te àggul woon ci àgg leen fenn kon loolu mooy tax ñu xam ne loolu ginnaaw yéefaralante wala jàpp ne sa morom ab kàccoor la ak bu tegu woon ak ñoom foofu mooy wane ne tàqaliko ga ñuy wax bokkul boobu buñ seetloo nag danañ gis ne ci histoire tàqalikoo ci biir xeet wi ci ñeenti kuréel la déparé yi ci def yëpp bàcc pàccloo séddali ko ci biir kuréel yooyu bi ñu jëkk mooy kuréel bi ñuy tudde alqadariya alqadariya mooy ñi nga xam ne dañoo weddi dogalu suñu borom tabaraka wa taala dem ba ne doomu aadama mooy def lu ko neex waaye yoonu yàlla nekku ci wala ñu dem ba ne suñ borom tabaraka wa taala xamul xamut li xewagut ki ko jëkk a tasaare te loolu mooy kuréel bi gën a yàgg ci kuréel yi am yépp yi jëkk a xottiku doddiku génn sunna génn yoon wi yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa nekkoon mooy kuréel boobu ñuy wax alqadariya ki ko jëkk a mooy ku ñuy wax maabad al juhani Maabat al Juhani moomu ci jamonoy Abdullah ibnu Omar ibn al-Xattaab ci la doon dund biñ ko joxee ab xabaaram li ko dane man de jooja waaye gisuma ko moom ñoom àndal waaye su ngeen ko gisee nee leen ko Abdullah ibnu Omar set na wecc ci moom moo ñoom àndal jotewuma ak ñoom dara te booba Abdullah ibnu Omar dem na ba ci e, jamono yoo xam ne saxaaba yi daanaka néew nañ ci kaw suuf mu néew lañ woon ci kaw suuf ci jamono yooy dem na ba doon góor gu mag boo xam ne bu màggat a màggat la ba tax na su nit ñi gisee lu bees dañuy làqatu fan la àndandoo yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa des ñu dem yëgali leen loolu biñ dikkee gis ko nettali ko mbirum Maabad loolu la leen tontu xadis boobu mu ngi ci saxiixu muslim gannaaw bu loolu xewee mbirum xabaari ji moom itam bokk na ci yi nga xam ne ci jamono yi dee teel am ci jamono yi Ali ibn Abi Talib ci lañ am xilaf muy tàqalikoo bi nga xam ne chia yi tàqalikoo nañ ko ci jamono yi Muawiya ibn Abi Sufyan ci lañ am beneen kuréel bi ñuy wax al murji'a moom it gannaaw loolu ci la am lu bari ci borom xam-xam yi dañuy wax ne ñeenti kuréel yooyu gannaaw bi kuréel yi pàcc pàccoo yëpp ba mag lim boobu yëpp ci biir euh, ñeenti kuréel yooyu ci lañ juddoo am na borom xam-xam yu bari yoo xam ne taalif nañ ay téere ci juróom-ñaar fukki kuréel yi ak ñett mooy yan su ko defee ñu di leen tudd kuréel par kurél benn bu nekk ñii lim ñaata kuréel ñoo nekk ci suufam ba indi lu mat juróom-ñaar fukki kuréel ak ñett loolu ab lim ci borom xam-xam yi taalif nañ ci te danañ wute ci tur yi ñu leen di tudde wala euh, fàttalikoo ga dox seen diggante nu mu yaatoo ak nu mu xate ak kulli xaal yonente bi alayhi salaatu wasalaam xabaar na ne xeet wi danañ tàqalikoo ak tàqalikoo bu bari tàqalikoo googu bi mu amee it am na lu indi muy li nga xam ne kenn ku nekk ba daw moom ngay daw muy tax bi sawara yonente bi alayhi salaatu wasalaam xabaar ne juróom-ñaar fukki kuréel ak ñaar ci xeetam wi dañuy dugg sawara mu des benn kuréel képp boo xam ne mooy dugg àjjana nit ñi nag suñ déggee loolu danañ yéemu naka la xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kuréel yu bare noonu naka la ñuy duggee na naka la ñuy duggee sawara benn kuréel képp di dugg àjjana te yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom moo doon wax ne maa ngi yaakaar di jàpp ne lay ëpp ci waa àjjana ci sunu xeet lañuy bokk loolu yonente bi salaatu wasalaam moo ko wax waaye loolu mën naa leer ci ne ah, bari kuréel yi tekkiwul ne bari mbooloo tekkiwul ne bari mbooloo kuréel mën naa doon lim bu néew du te ñu tudde ko kuréel kon loolu tekkiwul ne du xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa bari kuréel yu réer yi teewul ne ñi ëpp ci ñi ko topp mën naa doon ñi nga xam ne ñooy ñooy topp àjjana li ci mboot bi mën naa doon ñi nga xam ne ñoo jaar ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam beneen anam bu ko gën a mën a leeral moo di ne ñooñee di dugg sawara tekkiwul ne ñoom ñépp dañuy sax ci sawara bu faw tekkiwul ne ñoom ñëpp dañuy sax ci sawara bu faw ndaxte ku nekk ci ay bidaa biddaa yu àggul ci kéefër wala ku nekk ci ay mooy yàlla yoo xam ne àggul ci kéefër ba faatuwaale ko te tuubut su ko suñ borom tabaraka wa taala duggalee sawara itam ginnaaw ànd na ci ngëm yàlla dana ko mbugal ba mu jël lam yayoo ci sawara bu génne ko delloosi ko ci àjjana kon ñooñu su fekkee jaar nañ sawara it mën nañ faa jaar yi ba noppi dellusi wax àjjana su ko defee lool du dàqoonteeg li yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne séentu naa ne ñi ëpp ci waa àjjana sama xeet wi la ñu doon kon nag li am solo mooy eh, ci biir mbooloom waa na moo xam fu ñu jeexi ba dikk waaye ci mujj ga la ci ëpp xeetu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam lañ doon waaye nag lépp solo mooy fexe ba xam bunt yoo xam ne ku ci jaar insha allahu taala doo jaari fenn da ngay bokk ci suñu borom tabaraka wa taala eh, baaxe ñu dem àjjana direct loolu yàlla ñu ko yàlla may yàlla ñu ubbil itam bunt yi nga xam ne soo ci jàppee doo jàdd ba agsi ci loolu fii nag mooy bérébam bérébu gëstu ko ak jéem koo xam ak jéem cee ah jaar loolu rek mooy bunt bi ñaan tawfiq suñu borom tabaraka wa taala eh, kon kuréel yooyu su fekkee seetlu nañ dañu gis ci benn riwaaya bi fii mi ngi wax ne ñooñu nga xam ne ñooy tilkal ahwa yi mu wax ñooñu mooy bidaa yi nga xam ne dañuy réeral nit yonente bi alayhi salaatu wasalaam li mu ko waxe moo di kullu bidaatin dalaala bépp bidaa bu mu mën a doon ak réer la moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo wax loolu waaye misaal mi mu joxe fii lay misaal mu doy waar mu di waxtu bi nga xam ne day dal ab kalibu ñi koy wax kelab noonu la tawat yi tudd xuma nag nañ lañ koy waxe ci suñu làkk yi waaye tawat la joo xam ne borom xam-xam yi melal nañ ko ah. waaw xam naa boo demee ak kulli xaal euh, ràgg moom xam nga kii yëpp lay dal waaye kii dafa doon loo xam ne spécial la ci xaj bu ko talee dañoo wax ne bët yi day xonq coy muy baw di jël geen bi di ko dugal ci diggante tàkk yi te te duutu nangoo lekk duutu nangoo naan ba muy faatu loolu mooy melokaanu tawat ñi tax ne xaj bi loolu dal na su màttee doomu aadama tawat jooju daf koy daal di dal tawat jooju su ko dalee lan la koy indil wat li dañoo wax ne day mar mar wu metti moom nit ki boole ko ak di jooy di wax nañ ko may ndox te suñu indee ndox mi du ko nangoo naan melokaan boobu lay mel ba bu muy faatu kon yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñi nga xam ne biddaa tawati biddaa daf leen a dugg ñi tawat jooju dal ñooñu la jox misaal ñi tawat jooju dal boo leen seetloo kon ay nit lañ yoo xam ne tawat la joo xam ne kum attaqué jeex na faatu ngay xaar dara mënu koo faj te itam la ko waroon a mën a faj su ko laajee bañ jox ko ko day lànk bañ koo jëfandikoo nga xool ñi noor ci biddaa nag ba seeni xol nag naan ca ba màndi ñu leen naroon a mën a faj mooy kitaabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam alquran ak sunna te kat koo ci waxal lim lay wax mooy ñun ñëpp ci alquran ak sunna lañ jàpp moom lañ bëgg yëpp ci alquran ak sunna wante jamono yoo xamoon ne dem na ba jàpp ne lii la kam topp wax kam topp ci lii la nekkoon moo xam kam topp li ni njër la ko jàppe wala ab sëriñ la ko jàppe wala nu ko mën a jàppe kam doploo diw nee na nàngam nga andil ko wax yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di juyoog la diw wax da lay daal di tuumaal yow yow da ngaa bañ diw moo tax nga di ma indil lii su ma wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam leen kon kooku mbiram daal lay doon taxawaayam daal lay mel aw mar bañ indil ko ndox mi mu làkk bañ koo naan di xaar baax kon misaal la mu jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo xam ne mu doy waar la mu dëppoo la ak nit ñi nga xam ne dañuy dund ci biir ci biir bidaa yàlla nañ ci yàlla mos solo loo xam ne ci li mu gën a yitteel ci bitt bi ci lay bokk mu di bi mu tuddee ña tàbbi sawara ñëpp muy ñaar fukk ak juróom-ñaar fukk ak ñaar daf cee settee benn boo xam ne dafa wax ne mooy tàbbi àjjana muy lu rek li su borom tabaraka wa taala wax ne wal asr inna al insana la fi xusr doomu aadama perte na nga kooku day mel ni ñëpp mu ne illa alladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr wax ñan la settee ci ñooñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee ñi alku ba àggal settee na ci benn kuréel kuréel boobu nag saxaaba yi noppiwuñ ñu daal koy laaj mooy mooy ñan mu teg ko ay tont yoo xam ne am na ci boo xam ne dafa wax ne liyal jamaa riwaaya bu mel noonu ñoom ñooñu ñooy mbooloo mi liyal jamaa boobu comme li ngeen ko gisee ñëw na ci xadiisu Muawiya ibnu Abi Sufyaan ñëw na itam ci xadiisu Anas ibnu Malik ak beneen boo xam ne dafa wax ne humu sawaabul azam ñooy mbooloo ma gën a màgg kooku ñëw na ci xadiisu abi umama am benn riwaaya bu ñëw ci xadiisu amr eh, abdullah ibn amr ibn al aas mu ne ma ana alayhi al yawma wa ashaabi kooku moo leeral yépp ñooñu ñooy ñan mu ne ña nekk ci lii nga ne ci laa nekk tey man ak ñi ma àndal man ak sama saxaaba yi lii ñu nekk tey ña ci nekk jàpp ci ba faatu fekk leen ci ñoo ñooñu ñooy kuréel boobu kon loola daal nay daal di doon lu leer kon ni mu settee exception bi mu génnee ci mbooloo mi nga xam ne ñoo alku mooy ñooñu ñooñu nag ñooñu ñi nga xam ne li ñu leen di xamee mooy topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sécurité ci seenu dund ci wàllu diine mooy lenn lu nekk ñu xam naka la ko yonente bi sallallahu alayhi wa bu dee pas-pas nu mu ko fase woon bu dee jaamu yàlla nu mu ko defe woon bu fekkee lu aju ci wàllu yaru ak teggiin ak jëflante nan la ko defe woon ci wàllu xam lu dagan ak lu daganut ñu jéem koo jëlee ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon ñooñu ñooñu ñi nga xam ne melokaan boobu moom lañ yore moo tax am ay dàkkantal yu ñu leen koy yu leen di dàkkantale euh, ci biir téere yi borom xam-xam yi dàkkantale leen ko muy yu dëpp woon ak sharia mu bokk ci ahlu sunna wal jamaa ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa ne hiyal jamaa ñooy ñi topp sunna ak jamaa ñu tudde leen itam ahlul xadiis wal asar ñooñu ñooy ñi nga xam ne dañuy topp xadiis ak jeexit yi nga xam ne ñooy jóge ca saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu di leen tudde itam atbaa salaf as-saalix wala ñu di leen tudde as-salafiyuun muy ñoo xam ne ñoo topp jeexit yi nga xam ne as-salaf salafu saalix moom moom lañ doon topp muy jeexit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci saxaabaam seeni mandarga nag bari na lool yoo xam ne moom lañ leen di xamee waaye li mu itteel fii moo di am na lu itteel muy xam ñooñu seen dëgg dëgg dëgg mooy lan ndax itam las ciy jublu bu boobaa mooy jéem a xam lañ nekk ngir nga man caa nekk ginnaaw ñoom ñooy ñu mucc moo tax ñu tudde leen alfirqatu naajiya alfirqatu annaajiya mooy kuréel ba ba mucc moo tax al imaamu bi ci téeréem bu am solo boobu ñuy wax al i'tisaam muy wax ne taalifu ko lu dul ngir ràññee alfirqatu naajiya mooy ban mooy wax ne والحاصل أن تعيين الفرقة الناجية في مثل في مثل زماننا صعب ومع ذلك فلا بد من النظر فيه وهو نكتة هذا الكتاب mu ne amul benn werante ne lii ma xam kuréel bi mucc mooy baax ci jamono moom Shaatibi muy ci juróom-ñetteelu siècle bi nee na ci jamono jooju lu jafe la ngir ay bidaa yu bari kon noonu ci suñ jamono dana gën a jafe ah mu ne lu jafe la ci suñ jamono mu ne waaye nag ànd ak loolu lépp faaw nag ñi jéem ma seet nag ñooy ñan mu ne nag loolu moo tax téeréem boobu jóg téeréem bi ñu tudd Al Ihsaan muy téere bu ama am solo nga xam ne day woote ci jàpp ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon li ma bëgg a wax foofu mooy irte goo xam ne am na koo solo jéem a xam al firqatu naaji yi ñooy ñan muy kuréel bu mu ci boobu te kuréel boobu dafa am leneen lu amaat ci seen mbir mu di yemut ci nekk firqa naaji waaye dafa nekk firqa mansuura mooy suñu borom tabaraka wa taala daf koy dimbali laafiya dana ko musal ci bidaa musal ko ci eh, ak réer fii ci àdduna musal ko ci sawara yowmal qiyaama maxsuura la mooy suñu borom tabaraka wa taala dana ko dimbali ci ay noonam mu nekk fi ba faw di dëgër di feeñ moo tax ci benn xadis bu siiw suñu borom eh, yonente bi alayhi salaatu wasalaam di wax laa tasaalu taifatun min ummati zahirina ala alxaq laa yaduruhum man xadalahum xatta yatiya amrullahi wa hum kadalik mu ne faw ab kuréel dana am boo xam ne dañuy feeñal seenu nekk ci dëgg duñ nëbbu dañuy feeñal seenu nekk ci dëgg ku leen gecceel wala nga bàyyi leen wala nga sori leen it nee na loolu du leen lor dara ba keroo mbirum yàlla di ñëw muy keroo yomal xiyaam di ñëw sa fekk ñoom ña nga ci loolu kon jox na leen ay melokaan yu am solo muy al hidaaya ak al istiqaama ak ak tabaat ñett yooyu ñoom la al firqa naajiya di melokaanoon ñu gindiku lañ ñu gindiku lañ ba xam lan mooy asiraatul mustaqim yoon wi nga xam ne ku ci jaar mucc biñ ko xam ba noppet ñu am istiqaama lañ muy ñu ci sax lañ ñu ñu jub lañ maanaam jàddu ñu yoon wa la ca tegu mooy ñu am sabaat lañ mooy loolu biñ ko xamee ba jàpp ci yoon wet dañ koo topp nag te dara mënu leen caa wàññee moo tax mu ne xatta yatiya amrullahi wahum kadalik wala beneen riwaaya bi wahum ala dalik jële ko ci ay saxaaba yu bari bokk na ci ñooñu Sawbaan ak Jaabir ibn Abdullah ak Abdullah ibn Amr ak Uqbat ibn Amir ak Jaabir ibn Samra ak Saad ibn Abi Waqaas radiallahu taala anhum saxaaba yooyu yëpp muslim jële na ko ci ñoom ba tey Buxaari ak muslim solo nañ ko jële ko ci Muawiya ibn Abi Sufyaan ak ci al-Mughira ibn Shuba Omar ibn Xataab eh, solo na ko moom it jële ko ci Buxaari ak muslim eh, Buxaari ak muslim solo nañ ko jële ko ci alxakim solo na ko jële ko ci Omar ibn al-Xattaab ci sartu Buxaari ak Muslim nekk noonu itam Imran ibn Usoy eh, ba tey kon xadis la boo xam ne bu siiw la lu bari ci borom xam-xam yi ñu ne sax xadis la boo xam ne mutawaatir la xadis mutawaatir mooy boo xam ne ñii ci biir lislaam ñëpp nangu nañ ne lu wér la comme ni nga xam ne noonu la alquran noonu la alquran wéree bokk na ci ñi wax ne xadis bi mutawaatir la cheikhul islam ibnu taymiya eh, ci téeram bi ñuy wax iqtidaa sirat al mustaqim nekk noonu Jalaaluddin Suyuti ci téeréem bi ñuy wax al azhar al mutanasira nekk noonu az-Zabidi ci téeréem bi ñuy wax laqful laali al mutanasira nekk noonu ku ñuy wax al-Kattaani ci bu ñuy wax nazmul mutanasir nekk noonu al allaama Cheikh Nasir al Albani ci ñi ko wax bu ñuy wax salaatul iidayn kon loolu mooy melokaan boo xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam metale na ko al firqatu naajiya muy kuréel boobu nga xam ne moo mucc mu wax ne danañu feeñ ci dëgg danañ gindiku kon donc ku leen bàyyi wala nga jéem leen a lor itam nee na loolu bu leen wàññi dara te nee na danañ sax ci loolu ba kër yoma xiyam taw kuréel boobu nag fa fekk lañ nekk dëkkul ne am mbooloo la moo xam ne dañuy jekk-jékki dajaloo leen tudde nañ suñu mbooloo nangam kaay leen bokk si nit ñi ñëw bokk si ñeneen ñi ñooy alfir xët naa ci déedéet mbooloo lañ moo xam ne ñi ngi kenn fu ay jullit nekk fu nekk danañ am seen biir eh, moo xam ci penku la wala ci soow moo xam ay góor lañ wala ay jigéen wala nu seen mbir mën a demee waaye ñooñu ñu ngi seen biir doon ñoo xam ne xam-xamu diine moo leen di ñor danañ ko gëstu ba xam ko danañ ko topp danañ jaar ci sunna sunna leen di gënal itam lépp loo xam ne du sunna bu leen ko gënalee ba àggal itam dañ koy topp di ko jëfe te dañuy tax ci loolu itam ba bu ñuy faatu loolu mooy seeni melokaan kon ñooñu seen jër bi leen yonente bi alayhi salaatu wasalaam melale su fekkee dañu bëgg a xam méthode bi ñu jaar ñoom yonent bi ram na ko ma ana alayhi al yawma wa ashaabi lii ma nekk tey bis ni ko tey mag samay saxaaba nee na ñooñu nga xam ne ñooy kuréel bi mucc te loolu la ñuy nekk wax buñ xoolee li mu wax ne hiya al jamaa ak as-sawaab al a'zam muy mbooloo mu gën a mag ak mbooloo ma ba ne ma ana alayhi al yawma wa ashaabi li ma nekk man ak samay yooyu daa am contradiction bu am seen diggante wala amu ko ndax boo xoolee jamaa day mel ne mooy ñu gën a bëri boo xoolee asalatul azam day mel ne mooy ñu gën a bëri te nit ñi boo leen jëlee xool leen ci ñi jaar ci lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon moo ci saxaabaam da ngay gis ne ñooñu ñooñu ñi gën a néew gis itam ne règle bi nga xam ne moom a sharia tudd mooy yi gën a néew ci nit ñi ñooy ñi jub wa qalilun min ibadi shakur li gën a néew ci sama jaam ñi mooy ña ma wa in tuti' akthara min fil ardi yudilluka an sabilillah boo toppee li ëpp ci ci kaw suuf dañ lay réeral wante li wér te am moo di xadis bi contradiction amut ci diggante riwaaye yooyu moo tax eh, al imam al ajurri ci téere bu am solo bu ñuy wax asharia mu wax ne summa innahu salawatullahi wa salaamuhu alayhi suila man innaajiya mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñu laaj ko lan mooy firqa bi mucc kuréel bi mucc mooy ban fa qaala alayhi salaatu wasalaam fi xadiisin nee na mu wax ci benn xadiis mu ne ma ana alayhi alyawma wa ashaabi li ma nekk man naag samay saxaaba wa fi xadiisin assawaadu al azam mu wax ci beneen xadiis ni ñooy mbooloo ma gën a màgg wa fi xadiisin waaxidatun fi ljanna wa hiya aljamaa mu wax ci beneen xadiis ni ñooñu ñooy mbooloo mu ne wa maaniha waxidatun nee na yooyu yëpp seen maana benn la li ko firi mooy ma ana alayhi yowma wa ashaabi Abd ibn Maymun al awdi muy tabi'i yi bu am solo nee na dama nekk Sham Muaad ibn Jabal fekk ma fa ma gis ko rek yàlla dogal ak cofee tàbb ci sama xol ma dal di taqoog moom di jëriñu ci moom xam-xam ba yàlla dogal mu faatu ci sama kanam ma bokk ci ñu ko denc bañ ko dencee ba noppi ma xool kan moo ëpp xam-xam ci ñi fi teew ci ñi ma gis ci kaw suuf nee na muy Abdullah ibnu Mas'ud ma takkoog moom nee na Abdullah ibnu Mas'ud nag benn bis ñu wax ba àgg ci ilimaan yoo xam ne dañuy yeexe julli dañuy yeex a taxawal julli ci seen i jàkka nee na mu ne leen sallu fi buyutikum wajaalu salaatakum maahum subha mu ne leen su fekkee yeexe julli gi dafa dem ba àgg foofu julli leen ci seeni kër ba noppi ñëw ci jàkka ji julli ji ngeen di julli ànd ak ilimaan ja ngeen def ko naafil la ngeen def ko mu nekk seenu naafil la amri ibnu maymun nee na ñu laaj abdullah ibnu mas'ud ne ko wa kayfa lanaa bil jamaa waaw léegi kon julli mbooloo nag ko bëgg laaj foofu mooy kon nun léegi duutuñu julli julli mbooloo julli fàtt duutuñu ko julli ci mbooloo kon dañuy naafil la rek nee mu daal di tontu moom abdullah ibnu mas'ud ne ko yaa amr ibni maymun inna jumhur aljamaati hiya allati tufaariqu aljamaa li gën bari ci mbooloo mi mooy ñi tàkkalikoog la yonente bi ne mooy aljamaa inna jumhur aljamaa hiya allati tufaariqu aljamaa ndax dina ko innama aljamaatu maa waafaqa taata allahi wa in kunta waxdak mu ne ko jamaa mooy la dëppoo ak topp yàlla ni yàlla la jaar leen fii ka dëppoog loola kooka mooy jamaa ba ci jenn jëmm la nee na ko kooka mooy mbooloo mi bu boobaa moom la yonente bi alayhi salatu wasalaam jublu Ibnu Saama ci téeréem bi ñuy wax albaaid ala inkaar albidaai walxawaadis seetlu na maanaam moomu nee na wa xaytu jaa al amru bi luzum aljamaa falmuraadu bihi luzum alxaqi wa ittibaa'ihi foo gis ñu ne toppal jamaa liñ ci jublu mooy toppal dëkk foo gis loolu ci nusuus sharia yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne mooy jamaa xamal ne loolu dëgg la ci jublu ñene ca dëgg wa in kaana al mutamassiku bihi qalilan wal muxaalifu katira nee na donte ñu jàpp ci dëgg dañoo néew ña bari doon ña jiw ak dëgg itam nee na ñay jamaa mooy ñu néew ñooñu bu boobaa mu ne li anna al xaq alladi kaanat alayhi aljamaatu alula min annabiyi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam wa ashaabihi radi allahu anhum wala nadara ila kasrati ahli albatili baadahum nee na la dëgg mooy la xam ne ca la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon moom ak ay saxaabaam bari mbooloo mi seen gannaaw te nekkuñu ci dëgg nee na kooku kenn du ko faale amee su ci soxla maanaam kon mbooloo ma nekku ci dëgg luñ bari bari foo gëleñ amuñu solo ñooy jamaa mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci siraatul mustaqim irimaan yu bare bare bari ci borom xam-xam yu mag yi noonu lañ ko toppee bokk na ci ibnu xibbaan ci téere bi ñuy wax as saxiix ne al amru bil jamaati bi lafzi al umum wal muraadu minhu al xaas nee na bu ñu nee jamaa boo ko déggee noonu da ngay defe ne mbooloo mu bari mépp lañ wax fekk liñ ci jublu nag mooy mbooloo spécial lañ ci jublu li anna jamaata hiya ijmaau ashaabi rasulillahi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam jamaa mooy la saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo woon nekk ca fa in lazima ma kaanu alayhi wa shadda an man baadahum lam yakun bi shaaqin lil jamaa wala mufaariqin laha nee na ku topp lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon moo ci saxaabaam kooka moo topp yoonu jamaa kooka bu tàqaliku woon ak mbooloo moom dundal ñëpp ci kaw suuf it kooka moom mooy ci topp yoonu jamaa kon eh, lam yakun bi shaqin lil jamaa wala mufaariqin laha wa man shadda anhum wa tabia man baadahum kaana shaqan lil jamaa nee na koo xam ne nag moo seet li ñëw ci gannaaw bi xool te nit ñi gën a bari nga topp leen rek nee na kooka moom mooy ka juyoog al jamaa mu ne wal jamaatu baad as-saxaaba هم أقوام اجتمع فيهم الدين والعقل والعلم ولزموا ترك تحت الهوى فيما هم فيه وإن قلت أعدادهم لا أوباش الناس ورعاؤهم وإن كثروا kon daal loolu rek la seddali li ñu waxoon moo di la wér moo di aljamaa bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam jublu mooy ñi topp yoonu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak ci saxaaba waaye jubluñ foogam nit ñi nga xam ne lu yëngu ñu topp si wante topp ñu yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo tax Isxaaq ibnu Raahawayh ci dégg yoonu salaf ci baati jamaa boobu ba tey nee na law saalta juha al juhaat an sawaad al a'zam la qaalu jamaatu nnaas imaam bu mag muy Isxaaq ibnu Raahawayh moo mooy Cheikhul Buxaari nee na li ëpp ci nit ñi boo leen laajoon lan la yonent bi jubli ci jamaa nee na dañ lay wax ne mooy mbooloo ma gën a bari nit ñi noonu la ñuy xalaat mu ne wala yaalamuuna anna al jamaa aalimun mutamassikun bi athari nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa tariqihi mu ne ñooñu xamuñu ne lay jamaa bi yonente bi alayhi salatu wasalaam jublu mooy ñu jàpp ci jeexiti yonente bi alayhi salatu wasalaam jaar ci aw yoonam fa man kaana maahu wa tabiahu fa huwa aljamaa noonu la ko isxaaq ibnu rahoya di cheikh albuxaari noonu la ko noonu la ko leerale moo tax Tirmidi bi mu àttee ci waxu isxaaq boobu am na lu am solo bu ci teg mu jëkk ci ku ñu wax aljarood ibnu moaz mu ne dafa dégg Ali ibn al Xusayn mu laaj Abdullah ibn al Mubarak ne ko mën a jamaa jamaa bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax parce que comme que tur yëpp alquran ba mu des benn benn boobu mu ne hiyal jamaa mu ne ko mën a jamaa ñan mooy jamaa boobu Abdullah ibn al Mubarak tontu ko ne ko Abu Bakar wa Omar Abu Bakar wa Omar qiila lahu faqad maata Abu Bakar wa Omar ñu ne ko Abu Bakar ak Omar ñooñu xat nañ hasta fulaanu wa fulaan mu tuddaat ñeneen ñaar ñoo xam ne ci gannaaw Abu Bakar ak Omar ñu ne ko ñooñu faatu nañ fa qaala Abdullah ibn Mubarak Abu Hamsata Sukkari jamaa mu tuddat leen jenn jëmm joo xam ne ku siiw la ci jamonoom ci waxtu sunna mu ne leen kooku jamaa la moo tax Tirmidi teg ci ne Abu Hamza nee na mooy Muhammad ibnu Maymun wa kaana shaykhan saalihan wa innama qaala hada fi xayaatihi nee na boobu Abu Hamza Sukkari mi ngi dund wante nekkoon na imaam boo xam ne bu ñëpp xam lañ ci ak baax ak ci jaar ci yoon yi xam ne mooy yoonu njub moo tax Abdullah ibnu Mubarak nekkoon ku ci boppam jamaa la moom Abu Hamza as-Sukkari ma eh, ne Abdullah ibnu Mubarak ci ak toroxloom la ko wax waaye ñi ci jamonoom yëpp xam nañ ne bokkoon na ci ñi gën a topp sunna moom bokk ci ci ëpp xam-xam boole ko ak li jihaad fi sabilillahi ci aw làmmiñam ak ci xalimaam ak ci jaadeem itam kon jëmm eh, la woon joo xam ne boobu moom dafa bañ a tuddaale boppam waaye bu ko neexoon mën naa tuddaale boppam waxte li ñu itteel foofu mooy eh, waxu eh, ibnu rahoye boobu ak waxu ibnu mubarak boobu moo tax ibnu mubarak bi bi mu ñëwee moom isxaq ibnu rahoye ak na fu mu waxee ne wa fi zamanina muhammad ibnu aslam wa man tabiahu hum sawadul azam kenn ku nekk da nga def seet ci say moroom ñooy dundandoo ñi ko gis ne ñoom ñoo jaar ci sunna def ko ak teg ko ci yoon ñu ne ñii ñooy aljamaa wala ñooy assawaadul aazam kon Isaaq ibnu Rahoy foofu mu ngi tazkiya ku ñuy wax Muhammad ibnu Aslam di leeral mbiram bi al imam ibnu Qayyim asee foofu te fekk xam na Muhammad ibnu Aslam mooy kan la ko ci teg daf ne wa kaana Muhammad ibnu Aslam at-Tuusi al imam al muttafaq ala imamatihi nee na imaam la woon boo xam ne ñëpp nangu woon nañ ak imaamam wa naa rutbatihi kaana atbaa naasi li sunnati fi zamanihi kaan moo nekkoon ki gën a topp sunna nee na ci jamonoom nee na wax na sax ne xaristu an atuufa bil bayti raakiban kama mukkintu min dalik bokk na ci ak topp sunnaam nee na demoon naa ba fas na maa yéene tawaaf ci aj war comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa yonente bi alayhi salatu wasalam bu muy tawaaf dafa waroon dafa waroon gëleema xam ngeen ne tawaaf war ak ñàkk a war lépp dagan na ndax bi muy tawaaf ci war moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba wax di ànd ak moom di dox kon def nañu waaye iqraar na leen ci itam saxal na leen bàyyi na leen ci su doxalul woon du leen bàyyi kon ñu dox waaye xeeru imaam Muhammad ibnu Aslam ci sunna moom lañu ci jox misaal mu ne façon na maa yéenee tawaaf wax wante nee na bi mu demee fas ko yéene mayeesu ko ko mu war ci jamono yooyu xëy na jamono la joo xam ne ju xat ndax jamono ji nu nekk noonu ko bëggoon doo ko mën kon moo tax mu ne sama mukkintu min dalik mu teg ci ne biñu laajte leen ci borom xam-xam yi moom Ibnu Qayyim kat mooy aljamaa dafa tontu woon ne Muhammad ibnu Aslam at-Tuusi li mu jublu ci kenn ci borom xam-xam yi mooy Isxaaq ibnu Raahooy mu teg ci moom ibnu Qayyim daal di ne wa sadaqa wallahi mu ne jiñ naa ci yàlla ne wax na dëgg mu ne fa inna al asra ida kaana fihi aarifan bi sunna mu ne jamono ju mu mën a doon su fekkee am na ci koo xam ne ku xam sunna la daaun ilayha di woote ci sunna itam nee na ko huwa al xujja kooku mooy lay wax wa huwa ijmaa nee na kooku ak ijmaa wa sawaabul a'zam bu doon kenn itam kooka mooy mooy mbooloo ma gën a màgg wa sabilul muminin nee na kooka mooy sabilul muminin allati man faaraqaha wattabaa siwaha wallahu llahu ma tawalla wa aslahu jahannama wa saat masira loolu mi ngi ci téeréem bi iraqatul ihsan jawee juzu awal ba safa sabin nekk mooy kooku mooy ki nga xam ne ku tàqalikoo moom kooku tàqalikoo nga ak yoonu jullit yow yaay ka nga xam ne dangaa jàdd sabilul muminin bi nga xam ne yàlla nee na woon képp ku ko jaar ku ko teggi ma bàyyee la la doy te itam yow alxiyaam dana la jaar sawara nee na ko foofa day ak mujj la goo xam ne bu bu metti la bu ñaaw la imam ahmad am na waxam boo xam ne def ne in lam yakunu ahlal xadis fala adri man hum wax boobu am na lu ñu soxla mu ne aljamaa boobu wala asratul azam boobu wala ñu nekk ci li yonente bi alayhi salatu wasalaam nekkoon nee na su fekkee ñooñu bi ñooy ahlul xadis nee na xaw ma leen kon imam ahmad ibn hanbal maanaam amuñ suñu ñooñu amuñ alqadi ayaa bi ñëwee foofu lu mu wax mu ne araada ahmadu ahla sunnati wa man yactaqidu madhaba ahli lxadis lu am solo ngoo moom bi imam ahmad bu ñu nee suñ dul waa xadis xaw ma ñu mu doon alqadi ayaa daf ca teg ne li ñu ci jublu mooy ñi nga xam ne ñooy waa sunna ñi nga xam ne seen pas-pas ak seen jaaruwaay mooy jaaruwaay ahlul xadis fekk daf lay jëriñ ne ñu jublu ci ahlul xadis rek jublu ci ulama yi lu jàpp ne borom xam-xami xadis lañ ci jublu ba boo bokkul ci borom xam-xami xadis wala bokkul ci borom xam-xam yi gën a kaw ci sunna da ngay jàpp ne kon mënoo bokk ci alfirqatu naaj bi waaye mu ne liñ ci jublu mooy ñeneen topp ñi nga xam ne dañoo jaar ci jaaruwaayu ahlul xadis dafa sax bokkuñu ci ulama al xadis wante looloo leen rek ca lañ jaar ca lañ gëstu ca la ñuy laaj moom la ñu jëfe kon alfirqat naajiya mooy mooy ñooñu kon foofu suñ jëntee mën na loo wax ne su fekkee xool nañ kuréel yi am ci ko suuf yëpp ba mu jeex kuréel bi ñu mën a tudde ne ñooy alfirqatu naajiya doon wax ne mooy mbooloo sàngam waaye dañuy wax ne mooy ñi mel nangam ñooña nag ku nekk ko mel ku nekk ci ay gëstu lu la tax a mel noona nga jéem a jaar ci yoon wa lu ñu xoolee ci kuréel yi am ma sa am ay kuréel tàmbalee am ba tey bindkat yi tàmbalee bind ba léegi liñ ci ay kuréel ci benn kuréel boo xam ne dakk na ci dëppoo ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci yëpp di gëstu li saxaaba yonente bi alayhi salaatu wasalaam nekkoon ci yëpp ñu di ko di seet seen tax jóge ci ñoom ñu di ko topp mu jox leen itam lu bari gënal leen it lu dul loolu te buñ seetloo ñu mel noonu danañ gis ne mooy ahlu sunna wal jamaa amul beneen kuréel bu mel noonu ñett ñi nga xam ne yoonu yonente bi alayhi salaatu wasalaam bëri na leen aqidatan wa ibadatan wa sulukan wa tarbiyatan wa daawatan wa siyaasa mooy ñi nga xam ne pas-pas ba yonente bi sallallahu alayhi wasallam pasoon moo ci saxaabam doy na leen yàq yàlla yi ñu doon def doy na leen soxlawuñ def su nit bañ jaaroon muy ne ñare woon seen i bopp ak seen i bakkan doy na leen sëkk nekkoon wootee fi sabilillahi itam di woote jëme ci yàlla yoon yañ doon jaar doy na leen sëkk bu dee wàllu politique nañ ko doon defe doy na leen sëkk amuñu soxla ci leneen kon ñëpp ñu seenu melokaan ak seenu ngir ak seen méthode mooy jaar ci alquran ak sunna ci na ko salafu saalix dégg woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak di saxaabaam roy nañ ko dégg ñooñu lañ noona lañ lañuy jëfe seenu déggiin mooy dégginu ñooña fañ jàpp ne fa lañ mën a jële diine mooy fa ko ñooña daan jële nañ daan istidlaale itam muy su mat sama xaan ñëw nan lañ koy seet ci ak daganam ak ñàkk daganam ak jubag ma ko dëppam mooy na ko ñooñu daan seet ñeneen ñu dul nag boo leen seetloo da nga gis buñ juyoo ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam buñ juyoo ak saxaabaam léeg-léeg boo xool ci yi da nga gis ñoo xam ne la leen léppal mooy topp seeni xel xelum kese dañuy dem ba di la wax ne dana ñëw ci kanam ci bunt bii nu nekk te da nga gis ñoo xam ne dañ lay wax ne bu xadis ñëwee da ko jëfe bu ko jëfe te xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko kon ñooña benn xel la ñuy jaam kuréel xam ne ñoom la ñu tudde almutakallimoon yëpp seen lor foofu la départ muy almu'tazila ak aljahmiya ak ñoo demee ne ñoo xam ne topp seen châtiment li ñu xawaatif ak topp seen réer lu mel ni xawaari ak chia yi loolu moo leen tàqale ak yoon wa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon nga gis ñoo xam ne ak yéen ay pax ay daawa lañ ko mën a tuddee yoo xam ne da nga ne mu yéey nii la demee te fekk ñëpp ku xam dara ci sharia wala nga xam dara ci diine da nga xam ne demewul noona nekk na ku wax lu amut la wala ku seytaane jekku la ñëpp ñe dañuy wax ne foofu la ñuy jëlee seen diine léeg-léeg nit génn gént gi day mel ni wax yu wàcc ci moom jële diine ci gént yokk yi ci yi gën a tàqale xeet bi bokk ci yi màbb diine ci ci la bokk yii sori nit ñi yoonu ahlu sunna wal jamaa yoon wi nga xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci la nekkoon ak i saxaabam ci la bokk seetlul su fekkee ne ahlul xadis bañ amee ba léegi ñu di leen tuddee ahlul asar seet biir fan lañ ko sukkandiku moo ci qaala allahu muy alquran al karim ak qaala rasuluhu muy téere xadis yi nga ne moo nekk ci seen loxo biñ def ba jëmi jamono nit ñëw ne leen yéen seen xam-xam rek di wax diw sàngam nee na ma diw neex ak diw nee na te ñooñu ñëpp dañoo faatu nit nag suñ xam-xam dañ ko jëlee ci ki nga xam ne day dund faatu du faatu dañ ko jëlee ci moom direct kon loolu lan loolu ay bunt la yoo xam ne mën naa saxal diine lislaam mën na andi jeneen diine mën na toog bidaa mën na ko dundal def ba jëmmi jamono duñ yemati ci loolu nga ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na nangam ak nangam xadis bi ko solo ak muslim ak nangam ak nangam ak nangam ñu ne la waaye diw sàngam moom waxut loolu te yonente bi la gis ci lu ay nelaw yonente bi ne ko nangam ak nangam ak nangam boobu ku ubbi ko fu mu yem fu mu yem kat ngay mën a wax ne diw wax na dëgg moo gis yonente waaye diw gisu ko diw gisu li ci tax bu subaa keneen mën naa jóg taxaw ne ko man gis naa yonente mu wetti li nga waxoon démb loolu koy xakkam lu leen di atte wax tàqaliko jullit ñi ak soxe gi nit ñi di jàmbat li ko waral mooy loolu li ñu tudde talaqi diir fan lañ koy jëlee kat mooy koo xam ne suñ jëlee ci moom loola lu ñu war a jëfe la lu ñu war a li mbooloo mi ñu jëfe ko la foofu la jóyoo di nekk kii alquran ak sunna la fee danaa la alquran ak sunna la waaye nag alquran ak sunna jooju mooy jax li jullit yi xam la ko dale ci saxaaba yi ba ci suñu jonni tey ahlu sunna wal xam ko mooy li nga xam ne moom lañ tëdd ñun ci téere sunna mu nekk ci alquran itam bu fekkee ay kuréel nag day dem ba feeñ yoo xam ne loolu lépp mën nañ ko fa bàyyi ba noppi indi loo xam ne dañ ne nii ci yonent bi ubbi bunt yoo xam ne amul fu muy yem te itam su bunt yooyu ubbi ko day mujj kenn ku nekk la ngay jaamu du bokk ak la loolu mooy tàqale jullit yi defe naa ne xadis bi bokk na ci xadis yi xam ne day xupp jullit yi di leen xëcc di leen delloo si ngir ñu jéem a xam yoon bi nga xam ne suñ ci jaaree tex àdduna dana am mu di tex jullit yi dana mën a am lépp dund danañ ko mën a dund ci mu simple moo xam ci wàllu jaamu yàlla moo xam ba wàllu doxinu àdduna ndax bu boobaa li ñu tudde al haymana muy ak moomeel kenn rek moo leen di moom ñoom ñëpp mooy doon seen borom moo leen di digal moo leen di yeneen ñi ci def ñëpp ay mbokk la ñuy doon ci biir ëtt boobu yoo xam ne dañuy dimbalante dañuy jàppalante ci naka la ñuy mën a jubbantikoo ba mën a jaar ci yoon wi nga xam ne moom la leen seen borom xàllal moom la leen digal itam ñu jaar ci kon seen taxit àdduna ci seen wàllu dundin ak ci seen wàllu jaamu yàlla day daal di jàppandi lool seen ëllëg itam mën a baax ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo leen bëgg ci loolu moo ne kuréel boobu bu mucc lay doon kuréel bu feeñ lay doon kuréel la boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala moo koy taxawal boppam te yowmal xiyaam mooy ñi nga xam ne moom lañ seetee ci ñooñu nga xam ne ñëpp dañoo dugg sawara ba mu des benn kuréel boobu mu melal ko ne mooy ñi nga xam ne lan nekkoon cero ba mu koy wax moom ak ay saxaabaam loolu la ñuy jéem gëstu di ca jaar li ca nekk defe naa ne loolu mooy lu aji ci luñ mën a wax ci lu aji ci xadis yooyu ak seen riwaayaat mën a taxaw kon dégg ngeen laaj bi mu ko waxee moo am na ñoo xam ne euh, dàq nañ xadis bi sukkandiku ko fan moo di ne buñ xoolee barke yi nga xam ne noon la julli ji séddalikoo man naa ëpp euh, soixante douze yoo xam ne dañ ci dolli al sunna wal jamaa ñu doon soixante treize maanaam juróom-ñaar fukki kuréel yi ak ñett ñi nga xam ne ñoo bind ci kuréel yi ndaxte butti la boo xam ne ak ci juyoo am na ci seen diggante ñett ñi dañoo wax ne lim bi di ci yonente bi alayhi salaatu mooy kuréel yu bari rek lay doon wante juróom-ñaar fukki ak ñaar la juróom-ñaar fukki ak ñett waxul ne foofu lay yem wante dana mat lool la wax nga xam ne bu dolli ko it dàqantuwut ak loolu ak ñu teen ñoo xam ne ni ñu ko waxee ni ñu suma ko foofu mooy dafa tudd lim bi noonu rek wante jubluwu ji ne dana ko mat wala dana ko wala moom dong lay doon maanaam loolu la ñuy wax adat boo xam ne la mafhuma lahu jubluwu ci lim waaye ak bari rek la ci jublu wante li wér mooy yi nga ne dañ ci taalif te tudd juróom-ñaar fukki yi juróom-ñaar fukki ak ñaar ñi koy junj mu ñu mel ne Ibn Hazm ci téeréem bi ñuy wax euh, al fisal ku ñuy wax abu muhammad al yamani bi ñuy wax al firaq euh, as-sab'un ak ñi ci tax yëpp li ñuy wax moo di benn kuréel fukki kuréel mën naa nekk ci suuf bu ñu doon kuréel yi chia léegi nga xam ne chia rek nga leen di tudde lan moo nekk seen suuf ci ay kuréel euh, abul hasan al ashari ci téeréem bi maqalaat al islamiyin lim tudd ci kuréel yoo xam ne nekk yoo xam ne ñëpp lan turoo moo leen di yore kon lay tax lu bare bari sax ñii leen dañuy wax ne ba léegi ba léegi soo dajale kuréel yi am yëpp ba léegi juróom-ñaar fukk yi ak ñett matagul matagul ba léegi kon ngay jël lim bu bari bari ñu dellu ci benn kuréel nga jël lim bu bari ñu dellu ci beneen nga jël lim bu bari bari ñu dellu ci beneen boo jëloon ci yàlla léegi ak seen i pas-pas ak la nekk ci seen biir ak ci raatu ba ji aju seen ci seen biir fiqul baatiniya dafa dem ba firaqu si ak seen boppam seen i kuréel ëppatu nga gis ne firaqul baatiniya ci boppam seen benn faro bu ndaw rek benn bunt ci ñoom ci la li ñu tuddee suufi yi ci la sosoo mu ci fi ñu ba dugg ci biir zaahir ak baatin ñoom albaatiniya ci biir loolu nga xam ne moo gën a fës ci ñoom moo tax ñu tudd leen albaatiniya ci biir kuréel boobu ci la tasawuf ñaata ñaata kuréel moo nekk ci biir ci juróom tasawuf ak ay tariqa euh, defe naa ne euh, Zaki Mubarak lim lim defee benn ba rarement ci tarixa yi nga xam ne biir Égypte rek la nekk tudd na téeméer rek nangam ci ay tarixa kon kuréel yooyu mën nañoo baree baree bare fekk li leen di croisé benn kuréel la boo xam ne moom moo leen boole ñoom yëpp kon loolu fépp telewut ne kuréel yi am ëpp nañ ëpp nañ li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon boo ko seetloo koy da ngay wax matagul ba léegi matagul ba léegi loolu loolu mooy gën a jege wante li am solo mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tàqali ko gi mu waxoon jamono yam koy boobu amagut waaye am na kon loolu feddali ak yonentam moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xadis bi nag doon xadis boo xam ne wér na wérin woo xam ne képp ko xam dara ci xadis da nga xam ne xadis bu wér la wér na bu dee ci wàllu sanad wér na bu dee ci wàllu maana kon deful beneen beneen jafe-jafe boo xam ne mooy tax nit ki di taw kullu bidaatin dalaala wa kullu dalaalatin fi naar boobu ab xadis la boo xam ne dafa wér yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ci ci xadis boobu nga xam ne moom la moom la siiwee ne xubbatul xaaja la tudd si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan ubbi mbir mu am solo gannaaw boo xam ne ubbee na ci ay alquran yooyu ba àggal ba teg ci amma baadu fa inna asdaq alxadis kitabullah wa xayra alhadi hadiyu muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa charra alumuri muxdasatuha wa kulla bidaatin wa kulla muxdasatin bidaa wa kulla bidaatin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar ziyaada boobu muy loolu yi ci dolli ko muy wa kulla dalaalatin fi nnaar muy sunanu nasaai te lu wér a wér maanaam lu sax la bokk na ci ñu ko wéral Cheikh Nasrul Albani am na benn téere bu mu taalif boo xam ne xutbatul xaaja la ko tudd dana am jamono yoo xam ne jamono yi ñuy julli tisbaar moom lay laaj ne ndax dana am jamono yoo xam ne waxtu yi ñuy julli tisbaar day mel ne waxtu wi yeex na lool loolu dëgg la am na waxtu yoo xam ne dana yeex waaye ñu bañ a fàtte ne waxtu tisbaar maanaam moo gën a yaatu moo gën a yaatu yeneen waxtu yu bëree bëri ba tax na yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci wàllu euh, bu jot nay tàngoor amee daanañ seetlu tuuti seetlu gi mooy bàyyi waxtu mu gën a mu gën a yeex tuuti mu kon waxtu tisbaar li feeg jëmut nag ba jéggi dayo ba ëpp mën ñoo wax ne yeexe gi àgg na ci àggin woo xam ne nit ki lay war a julli ci këram bàyyi julli ci jàkk mën nañ ci jël misaal ne su fekkoon ne day jekki ba trois mu door a julli kooku amul yenn jamono yoo xam ne nii nit ki war na ko toog moom di ko xaar jàkk su boobaa kay moom war naa julli ci këram balaa loola jox su ko defee bu boobaa bu déggee ñu noddu taxawal julli nag mu dem julli loo xam ne soriwut muy julli ci këram euh, ndax julli farata gi ca jàkka ja doon yoo xam ne yoo xam am solo <coughs> sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax danañ ko wax sayidina wala duñ ko wax euh, li mooy yonente bi sallallahu alayhi wa mooy sangu yëpp moom nee na ana sayid waladi aadama wala faxr maay sangu doomi aadama yëpp wax ne loolu na jubluwuma ci damu wante loolu li ñu ci jublu mooy nett li li am ak itam waxtaane xéewalu boroomam ndax yàlla nee na wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis sa xéewali boroom lee ko waxtaane kon su ko suñ boroom tabaraka wa taala defee mu gën doomi aadama yëpp kon bu waxee loolu day waxtaane xéewalu boroomam ak di nett li li am waaye jubluwu ci tamu ndax dugal yëpp jarul ngay taxaw di damante ñoom parce que lépp dikk nañ ci moom ne ko ante sayiduna mu ne leen taxaw leen xamal ne ko yow yaay sunu sang tàmbali lim mu ne leen laa yastajriyannakumu shaytaan wattu leen saytaane gàggal leen yóbbu ne leen man jaamu bi yàlla laa di yonentam nee leen jaamu bi yàlla ab yonentam ñaar xadis yooyu bu ci ne dafa am ci lu mu jëm su fekkee ne nit ki wax sayiduna lam ci jublu mooy bëgg a yëkkati yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba bëgg ko te moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xëy na loolu la gisoon ci ñoom ndax bi mu àggee daf ñu leen bokk na ci la mu leen wax mu kama atrati nasara ibnu mariam bu leen muy jay comme ni xam ne noonu la nasaraan yi jayee woon isa ibnu mariam àgg ci ne ko yooyu sax yaay doon yàlla bu leen ma yëkkati ba àggale ma béréb boo xam ne du sama place loolu la ci jublu wante jubluwu ci ne bu ko kenn wax sayyiduna su fekkee ne nit ki li wax xam na ne moom jubluwu ci euh, ak teengal wala àggale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko dara ci loo xam ne ak yàlla la kon su boobaa sayiduna bi amul lenn loo xam ne si lu wàññi la euh, ndax nekk li li at la rek moom mooy sonn bi yëpp donte nag ci ay jàngaleem moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam li ëpp ci li mu doon jàngale ci wàllu julli ci moom ak yu mel noonu allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahima lu mel noonu la doon jàngale saxaaba yëpp lu mel noonu lañ doon jëfandikoo wante sayidina bi daawuñu faral di dugaale ci biir julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam teewul nag lu dagal la ko li feeg du nit ki daf ëppal salaam eh, li mu laaj dégg ngeen ko mooy ci jullit bi ñaan ci biir ak ci sujjóot ci bët ñaan yi ndax day yem fi ñaan yi nga xam ne rek ñoo rot sunna ci bët boobu képp wala daf ci dolli yeneen ñaan yoo xam ne ñu sunna bi ca xaya mu ni fitaaya ba jeexal foofu bërëbu ñaan la nit ki bu sujjóotee ba wax zikr bi nga xam ne moom la ñuy wax ni subhaana rabbi al ala wax ko li mu koy wax ba àggal la des ci sujjóot bi foofu bërëbu ñaan la ñu nit bi nag suñu ñaan foofu li ñuy wax mooy li gën ci ñaan bu mu doon du foofu rek waaye ak bu mu mën a doon ñaan nga mooy ñaan boo xam ne dafa rot ci wax yi moo xam alquran la wala sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam foofu mooy ñaan bi kon foofu su fi mënee jàng ñaan boo xam ne dafa rot ci sunna wala mu rot ci alquran loolu mooy la gën ba eh, lu bari ci borom xam-xam yi eh, rawatina ñi nga xam ne ñooy mu xàqikoon yi ci seen biir borom xam-xam yi gën a dëgër eh, gis nañ ne li yonente bi alayhi salaatu wasalaam tere woon sujjóot comme ni mu nekk ci Ali ibn Abi Talib ñu jàng alquran ci biir nañ ne bu fekkee ñaan la bu fekkee ne ñaan la ñaan gi dafa dugg ci biir ayat alquran noonu rek fekk mu sujjóot gis nañ loolu bokk ci lim tere comme bu sujjóotoon jàng rabbana atina fi dunya xasanatan wa fil axirati xasanatan wa qina azaban naar kooku jubluwu ci la boo xam ne dafa dugg foofu kooku doa lañ koy jàpp su ko li gën ci ñaan yi li foofu moo di loo xam ne dafa rot ci waxi muy alquran wala sunna su ma ko amut mooy ñaan boo xam ne ñaan bu jub la bu tegu ci yoon la ñu wax ko ci kalaama yi nga xam ne ci la alquran wàcc mu kalaam ak arab moo ci moom itam mooy ñaareelu daraja su la ko amut déggut arab mukkalul ak ñaan bu mu wax ci alxuraan ak sunna sañ naa ñaan ca làkk bu mu dégg moo xam daa sujjóot moo xam dafa taaya ba jeexam loolu mooy li nga xam ne mooy taxqiq ci biir masala boobu wallahu alam euh, xadis li bu am solo muy ay aataar yoo xam ne ñu ngi jóge ci saxaaba bu màgg boobu muy Abdullah ibn Mas'ud euh, benn bi ko xam yaayu bi dafay nett li mu ne kii dafa ñëw fekk ci jàkka ji ci Kuufa mbooloo mi dajaloo am ko taxaw ci seen biir di leen wax tudd leen yàlla nanga mi yoon ñu tudd loolu bu ñu àggee mu ne wax leen laa ilaha illallah nanga mi yoon bu ñu àggalee mu ne wax leen nanga nanga mi yoon kooku gis mbooloo mi def loolu def seenu géew mu jóge ko dikk ci Abdullah ibnu Mas'ud ne ko man de gis naa kéemaan boo xam ne daaw ma ko gis ci jàkka ci jàkka ji mu ne ko lu mu doon mu ne ko kaay xoolal sa bopp Abdullah taxaw xool leen gis la ñuy def mu ne leen déglu leen ñu taxaw déglu ko mu ne leen yéen day def na ci ak réer ngeen nekk wala noonu àndandoo yonent bi ci ak réer lam nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi nii yi mu fi jógeeg léegi dàllam yi mu fi bàyyi woon sax rappagul yàqugul yéefeen yi mu fi bàyyi woon di indi diine ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ko nopp lañu ko daal di tere euh, tere boo xam ne itam gum boo aku tàngoor la bu ko naqari kon foofu li muy jëriñ moo di ne bidaa ci boppam ci diine ci li gën a gaaw a sosu ci la bokk ndax seytaane gis na ne foofu la mën a jaar pour jaamu ko yàlla yi mu lor leen parce que ki nga xam dafa jub gëm yàlla gëmu yonentam euh, di jot mu yàlla te nangu caa sonn lool kooku boo ko bëggee woo ci tàngara wala nga woo ko ci ak yàqate kooku lu jafe lay doon waaye ci biir jaamu yàlla am gi nag mën naa fexe ba bëttloo ko ay tur yoo xam ne fa lay jaar ba diine ñu wax mooy lan mooy indi loo xam ne day juyoo ak li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam indi woon bidaa ci diine mooy loolu yonente bi alayhi salatu wasalam jaar na fi ba lu ko fi indi woon lu taxoon ñu koy wax di wàccee ci moom di ko wax wa anzalna ilayka dikra li tubayyina linnaasi ma nuzila ilayhim wàcce nañ ci yow alquran ngir nga leeralal nit ñi li ngeen wax ci lu mu doon kon su fi jaaree ba jàll lim leera lu woon keneen ku ñëw bëgg a indi lu mel noonu kon xamal ne bunt bi daama ngay ubbi ko ñëpp ñi doon wax lu baax la laa ilaha illallah lu baax la allahu akbar lu baax la tudd yàq lu baax la wante ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak mbooloom dañ daan dajaloo def seen i jiw noonu kii ne jox daf leen lii téeméer daf leen lii ñaar téeméer daf leen lii ñetti téeméer déedéet yonente sallallahu alayhi wasallam ak saabam ko bu ñu loolu bunt la boo xam ne di bunt yi seytaane mën a naxi doomu aadama ci la bokk ci la bokk yonente bi alayhi salaatu wasalaam am na zikkar yu mu daan def am na ay zikkar yu mu daan def yoo xam ne lim la am lenn lu ci nekk lu ci am lim lu nekk xam nañ subhaanallah walhamdulilah wa la ilaha illallah allahu akbar daal bu ci nekk fanweer yoon ak ñett loolu ñu tudd albaqiyat salihat ba ko téeméeréen nga ne laa ilaha illallah waxdahu la sharika lahu lahu mulku wa alhamdu wa ala kulli shay'in qadir waaye su fekkee ne loolu foofu la ko fixé da koy gëm ne lay sellal bakkanu doomu aadama bi di ko baaxal mooy mu yemale ko ci lim bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo ko wàññee juróom la ak sunna boo ko yokkee juróom la ak sunna boo def sikkar boo xam ne wutalu ko lim bul ko wutal lim sikkar si kenn kàttan yonente am na fu mu waxee ne dana jéggalu yàlla ci bis fanweer boo xam ne téeméeri yoon kon yooyu ñaar yooyu lenn la ci nekk jullit bi mën na koy def par bis boo bëggoon a def téeméer yi wax nga julli koo def ku nekk juróomi julli yi wax astaghfirullah ñaar bu jeexee nga am téeméer yonente bi sallallahu alayhi wa sallam

te fekk andi lu ko gën lu dul ko wax lu ko ëpp kon kooku bul ne ma junni lay doon bul ne ma ñaari junni lay doon lu la ko soox ku maye na nga ko def noonu kon kooku bii mu fenn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam itlaaxee mooy su ubbee bunt bi yemale wu sikkar bi fenn bul ko wutal fu mu yem lu def na la ko sa waxtu maye yow defal sa sikkar na la ko sa waxtu maye bu ne lii juróom-ñaar fukk la wala téeméer yemal si juróom-ñaar fukk ak téeméer bu ne lii fanweer ak ñett la yemal si fanweer ak ñett bu ne téeméer la yemal si téeméer waaye ay sikkar yoo xam ne fii da nga koy sental sa bopp wutal ko sa limu bopp wutal ko waxtu woo koy def wutal ko anam boo xam ne ca nga koy defee benn bu ci nekk nga gëm ni soo ko defuwul ni yàq na kooku doonu dikkal yoo xam ne day tegu kon ci yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ci ibnu Mas'ud jublu woon moo tax mu ne ittabiu wala tabtabiu topp leen waaye bu leen fent faqad kufiitum mooy tegal nañ leen coono fent tegal nañ leen coono fent li ngeen doon xalaat li ci war a fent mu war a doon suñ participation loolu noppi nañ ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam indi na ko ba leeral na ko ba jeex na li la arte yow léegi mooy ittabi wala tabtabi toppal rek waaye bul bul mu ne kurus ndax dagal na eh, yonente bi alayhi salaatu wasalaam bépp riwaaya boo xam ne gis nga mu rot ñi subha ci lekk ci régal yi ahlul xadis daa lay jox ñi subha wala ñi ciy tudd lim boo xam ne dañ doon dimbali ko ci ay xeer wala yu mel noonu ci jamono yon bi sallallahu alayhi wasallam ci yonente bi di ko def xam ne loolu xadis bu wérut la ñu kurus ndax mën naa nekk moyen boo xam ne ak wàññukaay lay doon su ne wàññukaay rek li ko nit ki jàppee mën nañoo wax ne kooku bunt la boo xam ne duñ ko tëj duñu wax ne dafa xaraam ndax ni ñuy ragale ne nangam xaraamul te fekk lu xaraam la noonu la ñuy yi itam ne nangam xaraam la te fekk xaraamul moo tax ci buntu moyen yi dana jël suñu gortaliku ko moo ci lan am na ay moyens yoo xam ne dafa soobu gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ay sabab yoo xam ne moo ko waral moyens yooyu nag mën naa doon yoo xam ne nit ki mën na ko jëfandikoo te du yàq su fekkee rek am na sabab bu ko waral masalan ci jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam da daan toog ci jàkkaam di jàngale toog nit ñi di ko dégg ci kàddoom su nodd jotee nit yéeg ci kaw jàkka ja nodd bi dégg ko ba ci jëmmi jamono borom xam ak xadiis yi comme ni ñu ko jànge woon ci aadaab yi weesu dafay dem ba gis xam ne kàddoom du doy mu jëkk jëm ñu joo xam ne mooy taxaw ci fa kàddoom bi yem pour jottali ko ñu ci gannaaw mu tax keneen ku koy jot li su kii waxee kële jot li kii waxaat kii jot li kii jot mu doon moyen boo xam ne su suñ ko jëfandikoo wut ñi war a dégg wax ji ñëpp duñ ko dégg ñu dem ba jëmmi jamono ay yoo xam ne ay haut-parleur yi jariñoo yoo xam ne comme lu mel ne lii ñuy waxee tey amul woon ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wasallam wante moyen la boo xam ne man nañ koo dimbalikoo pour jot li liñ bëgg a wax nekk noonu rajo yi rek yi xew yëpp yooyu ay mbir la ay bidaalo doon yu sosu wante duñu wax ne bidaala fi diin kooku biddaa la bu dee ci wàllu luxa waaye bu dee ci diine bokkul ak sax ci diine su fekkee ne nit ki li tax nag kurus jëm boppam ànd ak loolu ma wax ma wax ne am na ay observation yi ñu ci war a def mooy war nañ cee jël sunu wattandiko ci mbirum jëfandikoo ko itam li ñuy wattandiko wax ne xaraam na wax ni jeex noonu la ñuy wattandiko itam mbirum jëfandikoo ko mooy lan ibnul xaaj ci téeram bi ñuy wax almadxal nee na kurus ci nasaraani lay jóge te kooku boroom xam-xam bu mag la ci boroom xam-xam ngirum Malik ci la bokk doon dund itam ci Andalus nga xam ne ñooy doon ñi gënoon a jaxasoo ak nasaraan yi ñoom ñoo jëkk a jaxasoo ak nasaraan yi ci jullit nee na loolu ci aada yi jóge ci nasaraan yi dikk ci ñoom ci la bokk booba ci jiitu beneen bi ci des moo di ndax nit ki ci biir sunna àgg na ci naqari ba li ñuy wàññi li yonente bi sallallahu alayhi joxe ci lim maanaam mënu koo lim su ko limee day jaxasoo su ko defee mu door a yëg ne aajo woon a kon mooy bu mel noonu pour mu jëfandikoo ndax du mën a jaxasoo lim biñ gis ci bu gën a rëy ci bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam fixé mooy téeméer mooy téeméer defe naa ne téeméer lu xelum doomu aadama jaxasoo jaxasoo war na ko mën a lim rawatina su fekkee ne hadis bi ñu gis ci sunan abi daawud mu yonent waree ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam su daan wàññi dafay wàññi ay baaraamam te da ko def def itam loxo lay joram lu bari ci mbokk yi da gis ñu di ci juum def ñu def ñu jëfandikoo bu càmmoñ bi loxo càmmoñ bi ngir nga mën a dëfe sunna bi dëgg dëgg dëgg bokku ci loxo lay jor bi moom ngay jëfandikoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf daan jëfandikoo ay rëdd rëdd yi rëdd yi baaraamam xadis baa ngi sunan abi daawud nekk xadis boo xam ne bu wér la loxo lay joram la daan jëfandikoo moom la daan wàññee itam lu aju ci albaaqiyaat wa saalihaat ak yeneen yu muy lim yu mu mën a doon kon kooku xayrul hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lekk li ci laxasawaat mooy liñ gën a gis li gën a bari bu fekkee réalité la ñuy xool li nekk waaqe mooy li lu gën a bare bare bare bari ci ñoo xam ne dañoo yor tuus di wàññi yëpp ñu wàññi yeneen yëf lay doon siir ne xam ne yoo xam ne dañu jékki-jékki junni nangam la ñuy woy wàññi léeg-léeg ay tur yàlla lay doon wax ne ànd tëkkum ñaan sax allah allah allah wala nangam benn baat boo xam ne jëmmi si kër boobu kenn ku nekk xam na ne wax dëgg yàlla dootul jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi daa benn benn tur loolu amut ndax loolu buñ ko seetlee ci wàllu teggin teggin des na foofu mu di ku ñu woo kilifa war a continuer rek di ko woo di ko woo ndax soo koy bu da nga ko laajoo yaa Allah yaa Razaq warzuqni ma ci war a def yaa Ghaffar yaghfir li waaye rek diw diw diw bu di ko yàlla kilifa bu toog ci biir mbooloo nga ko di ko woo di ko woo mbooloo nga dina déglu wala mu ne la nangam nga ne diw diw balaa mat fukk loolu ab taalibe mooy jóg sàkk fexe sa nit kon suñu borom tabaraka wa moom moom lañ gën a war a tegginoo ni ñu war a tegginoo moom waruñu ko tegginoo ak keneen ku mën a doon ndax ku gën ku nekk moo la bind kon yu bare bari ñu muy tur werd yoo xam ne mooy tax muy aajowoo kurus boo ko seetloo lu jógewu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon nga ne jullit bi ngir mu wattandiku ngir mu wattandiku tuuma yi ne dafa yor ay biddaa wala dafay sikkar loo xam ne jógewu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam subha boobu war na ko wattandiku ndax li ñuy wax wattandiku ay lënt wax bokk na ci principe yi nga xam ne jullit bi daf ko war daf ko war a melokaanoo daf ci war a góorgóorlu kenn kàttanam la tax mu ci góorgóorlu kenn kàttanam moo di mën naa yor aw yiw nit nit ñi nga xam ne ñoom suñ naa leen ñor ñu gis mu am la ñu bàyyi ko fa dem duñ jëriñu ci moom ñaareel bi mën naa def am lënt moo xam ne sax lënt ma demewul noonu nañ ko jàppe waaye nit ña defe ne noonu la ñuy waxtaan ci moom ci ab garam di kàddu ay bàkkaar ci wax jooju ñuy wax ko fekk moom moo leen ko teg kon yëpp yëpp day tax jullit bi war a gis am lënt moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu génnee ci jàkka bi fekk da doon liatikaaf soxna si indil ko indil ko aw ñam mu lekk ko ba noppi mu lëndëf mu di ko gunge muy dem am ñaari saxaar yi ñu ko séen ñu séene mu ànd ak soxna si di tàggoog moom ñu gaaw di dox dox bu gaaw mu ne leen taxaw leen ñu taxaw mu ne leen innaha safiya jigéen bi ngeen gis ma taxaw moom safiya la sama soxna saxaar bi yooyu daal di jooy ne ko même France ñu sikk sàkk itam ndax buñ sikk sàkk ci yow rasulullah sallallahu alayhi mu ne leen seytaaxe day daw ci doomu aadama nit deret di dawee ci biir aw yaramam kon na ngeen wattandiku ay lëbb wattandiku ay lëbb kon euh, principe la boo xam ne ci biir l'islam ci la bokk su fekkee ne yooyu yëpp dajale ci mbirum kurus li la yonente bi sallallahu di wàññiloo mën nga ko wàññi ci say baaraam te moom noonu la doon jëfandikoo te gàddu gi kurus na nga ci xamaale ne ca nasaraan yi la jóge ba ca tegu lu taxoo ak yeneen sikkar yoo xam ne bokkut ak sikkar yi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la moo xam ay sikkar yi lasrax la comme ni ñu koy tudde wala ay sikkar yoo xam kon yooyu yëpp pour jullit bi wattandiku ko na def na yonente bi alayhi salaatu daan def yaanam wàcc ànd ak nag ne bun ne dagan na wala daganut wante na ngeen xalaat kenn ku xalaat bu da nga xam ne xayrul hadi mooy hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam walaaj wala dikrullahi akbar ndax mooy ban ban dikrullahi moo gën a rëy tudd yàlla dikrullahi mooy tudd yàlla mën naa doon tudd ko ci làmmiñ mën naa doon fàttaliku yàlla inna salaata tanha anil fahsaa'i wal munkar wala dikrullahi akbar ñu wax ne julli ci boppam ni ko ulamaa tafsir bi firee aaya bi ci loolu la jëm julli day day nit ki jëfandikoo yoo xam ne yu bon la day dox diggante nit ki ak li ñuy tudde fahsha ak munkar moom julli waaye am na leneen lu muy indi moom julli moo di zikrullahi la julli bi boo taxawalee ba bëgg a sëlmal ci tudd yàq ak fàttaliku ko ci nga nekk dindi al fahsha ak munkar li muy réew réew ak li muy am am solo zikrullahi bi nekk ci biir julli bi moo gën a rëy yooyu noonu la ko borom xam-xam yi nga ne ay lañ ko firee xaw ma ndax seetlu nga maanaam nu mu déet inna salaata julli tanha an il faxsaa wal munkar day tere faxsaa ak munkar loolu lu am solo la waaye nag zikrullahi bi mu làmboo akbar moo gën a rëy dindi boobu muy dindi al faxsaa ak al munkar yeneen dégg bu ñu ko dégg mu mën a doon day daal di bëgg andi yóbbu ndax am na ñoo xam ne dafa daal di dem ci ne tudd yàlla moo gën a rëy julli kon mën nañoo bàyyi julli rek toog di tudd yàlla kooku daal di doon yóbbu ah alxasali bi ñëwee foofu am na wax ju am solo jëm ci wax téere bi wax almanqidh min ad-dalaal mu ne jéeg ci boppam tudd yàlla gi ci nekk ak dindi gi mu dindi alfaxsa wal munkar loolu lenn ci xekkam yi tax ñu farataal julli ci la bokk waaye nag wëriwut ne mooy lépp yooyu yenn la ci su fekkoon jaamu yàlla gi jullit bi dem na ba xam li ko tax a jóg kon su dafa wax ne su defee yooya kon mën naa bàyyi jaamu yàlla wante nag yàlla du doxale noonu du la wax yëpp li tax mu farataal ko du la wax lépp waaye nag mën na la ci wax yenn man nga dem ba mu yàgg nga tudd ne ah lii di julli dana ko jël waaye nag gas na yeneen mu ne mit mel ne benn góor goo xam ne dafa amul këram dafa benn jardin ci kër gi yëpp dafa benn fleur li muy fekk mu woo yëpp ne leen fleur gi lu ma taxaw ni ngeen ko fonk nee na ñuy dem ba mu wax nañu gis daal couleur gi mu di ñaaw ci yi fi nekk yëpp ñu ne daal couleur bi li mu waxoon dëgg la rafetal rek la ci jublu woon waaye léegi nag dem na ba rafetatu yi ci des ku gën a rafet kon mën nañu koo buddi nee na bi ñu ñëwee daal di buddi couleur googu naka ñu ko buddi rek ndeke couleur gi xeeta ci nekk goo xam ne daf daan tàkku ay jaan ba duñ ñëw ci kër gi naka ko buddi rek kër gi jékki-jékki fees dell ak i jaan yi ñaangoo ñu ne fekk ñoom li doon seen xàq mooy jàpp ne li ko tax a jóg rafetal képp rek la ca am ne leneen lu ko tax a jóg loo xam ne boo ko rafetal boo ko dindee daal gis loolu daf ñu dem ba defe ne tudd yàlla képp moo tax julli jóg ba nga ne mën na maa bàyyi julli ngir di tudd yàlla ñooñu suñ bàyyi julli danañ daal di gis ci xeetuñ jàppam ci ci ci seen i dundin ak ci seen i doxalin yoo xam ne li wér te wér mooy bàyyi julli moo leen koy def moo leen koy def ndax li wér wér mooy xoola rek bàyyi julli koo gis mu bàyyi julli lu gën a fës ci lu julli doon tere muy alfaxsa al munkar yooyu a song kon nag yeneen yi ca des yu nëbb yu taxul ñu wax kii mu ne ñu def lu muy laaj bu mujj bi incha allah ndax waxtu waa ngi bëgg a li yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax kullu bidaatin dalaala mu ne dafa am ñoo xam ne dañ ne kullu bi jubluwuñ ci ne lépp lépp rek la ndax léeg-léeg kullu dana ñëw te fekk duñ ci jublu lépp léeg-léeg kullu dana ñëw te duñ ci jublu lépp la kullu dana ñëw léeg-léeg te duñ ci jublu lépp waaye su ñu wax ci lépp bu boobaa day am dalil day am firnde joo xam ne mooy wax ne jubluwu ci lépp foofu léegi nag dalil dalil boobu léeg-léeg mu dem ba àgg ci doon li ñuy wax maalum min ad-diini bi darura mën naa doon loo xam ne yëpp xam ne ñu lool dugg ci comme kullu nafsin zaa'iqatul mawt la nee na foofu bakkan bu nekk ah dana dana mos dee bakkan bu nekk dana dee ba noppi moom borom bi wa taala saxal na ne moom am na nafs comme ni ko Isa waxe ne ko taalamu maa fi nafsi wala aalamu maa fi nafsik kon suñu borom tabaraka wa taala am na nafs wante ku am xel ku nekk am nga ne maaluma min ad-diin bi daruura ne nafs ba nga xam ne day mos dee boobu nafs suñu borom tabaraka wa taala bokk ci kon kooku am na dalil dalil boo xam ne maaluma min ad-diin bi daruura aaya bi ñuy faral di jëfandikoo ñoom di wax ne mooy wane ne kullu bidaatin dalaala Euh, jubluwuñ ci bidaa bépp kooku moo di li su borom tabaraka wa taala wax de tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha ñu ne settee nañ ci dara mooy lan moo di seeni kër ak yu mel noonu ma wan ne ni kooku dalil ba mi ci biir aaya bi fa asbaxu laa yura illa masakin loolu yàlla ko setteel boppam nee na lépp alkura ba bañ xëy ah dara desu fa lu dul seeni kër kon kooku suñu borom tabaraka wa moo ko setteel boppam mu ne leen nag yéen ñu wax loolu kullu bidaatin dalaala yonent bee ko wax wa kullu dalaalatin fi naar kullu googu su ngeen ci bëggee seetee dara luy dalil bi lan mooy wane ne bidaa du nekkul dalaala am na te yonent bi ne bidaa du nekkul dalaala képp liñ mën a wax mu doon wax ji jub mooy lenn moo di yii nga xam ne mooy yi sofu yi sofu ci lu dul diine ñu tudde leen bidaa comme yii ñu tiim lépp rajo yeeg yi fi bari yi nga xam ne yi sosu gannaaw bi la ak montar yeeg kooku bidaa la ci luxa wante du bidaa ci diine bidaa ci diine mooy mbir moo xam ne ci biir diine ji nga jàpp ne ci la bokk mun ci mun ci ñàkk nga indi ko ci biir diine ji di ko jëfe jàpp ne dafa baaxal sa diine soo ko bàyyee sa diine day manqué te ku ci nekkul ku nekk yaa ko xool ba tub ne diine manqué na kooku mooy bidaa ci biir diine waaye bidaa ci biir luxa kooku moom taxut ñuy wax kooku kenn terewu ko buntam dañ koo ubbi buntam dañ koo ubbi foofu moo tax lépp loo xam ne lu foofu la gannaaw yonente bi alayhi salaatu wasalaam rek mën nañ koo tudde bidaa parce que bidaa li muy tekki baat bi mooy lu foofu mooy luñ fent badiu samawaati wal ard mooy ci fent asamaan ak suuf kon bu ñu waxee ne euh, lu sosu gannaaw yonente bi alayhi salaatu wasalaam lu nekk rek bidaa léeg-léeg dañu dégg ñoo xam ne sax borom xam-xam yu leen jàpp woon da ci te xam ne wuñ buntu boobu léeg-léeg ñu gis ko dem ba naan la lekk mango ji sax bidaa la loolu dégg naa ko ci làmm ñu nit benn bis ci ci rajo yi mu naan maa nga sax bi daala kon la ñuy fi jéem a jële bi daa mënuñu ko fi jële yonente bi sallallahu alayhi wasallam lekkul woon maa nga loolu ak ñàkk xam ne la ñàkk xam ne la dañuy wax bidaa bidaa ci diine la ñuy wax waaye waxuñu bidaa lépp lu soxla rek nga bidaa la kon su fekkee bidaa la ci wàllu loxo kooku moom terewuñ ko su fekkee lu dagal la ci wàllu sharia bunt boobu mën ngeen ci jiima góos lu jiima góos ci jiim te dolli ko bu baax a baax ndax bunt xam ne ak sunna lii ñu dimbali nit ki ci kaw mu mën a jëfandikoo sunna ci la bokk wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad insha allah